maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen euh, journalistes yi nga xam ne bi yéen ñëw fii tey jii fekke ndaje bi nga xam ne bi ñëw nañ pour fekke ko ak suñu sëriñ sëñ Muntaxa Mbakke yàlla na yàlla suñu borom guddal aw fanam te itam liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëriñ Touba yàlla suñu borom defal ko ci ndam yi gën ci ndam yi li tax ñu ñëw fi nag mooy euh, ñëpp xam nañ ne sëñ Muntaxa bu ñu ñëwee ak bu ñu fi ñëwul yëpp ci ay ndigalam la ñuy nekk parce que sëñ bi mën na fee nekk doo fi nekk bis bu nekk mais da ngay toog fa nga nekk di ko déglu fu mu joxañ fa nga jëm lu mu wax nga def ko lu mu la tere nga jëm koo bàyyi loolu mooy position taalibe bi nga xam ne bi moom doon doon def mais suñu ñëw bii ñëw fii tey nag dafa am ñëw boo ne bii dafa nekk ñëw bu am solo ndaxte buñ gisee sëñ bi li muy def ci dëkk bi di dimbali nit ñi bu ñu demee ba dëkk bi nekk ci ay coow ak histoire bu mag nekk fi dafa def euh, rôle bi mu waroon a def mooy fexe ba arrêté ko kon ñun bu ñu nekkee ndakaaru dëkk bi toll foo xam ne fii nit ñëpp dañuy fëgg seen dënn violence bi di fi am ay proportion yoo xam ne yii mi ngi ñuy bugg jaaxal ñun dañ na woon dañuy def suñu warugar mooy ñëw ci moom sàkku ñaan ci moom wax ko ne ko réewum senegal fii ñu toll nii toll na foo xam ne fii laaj na moom mu teel cee wax balaa ñoo dem ba ay ay di fi am parce que nit ñi ku ci nekk yaa ngi fëgg sa dënn dëkk bi léegi violence am na fi wax naka su dul noonu mi ngi fi am ñàkki teggin ba tax borom xam-xam yi ñi ngi toog mënatunoo génn di wax ndaxte borom xam-xam bu toogee di wax ak koo xam ne kii wax rek la xam bu waxee mu weddi ko ñàkk ko teggin mu toog ci réew mu mel ni Sénégal xam-xam moo ko mas a yor xam-xam moo ko war a yor kon nag sama devoir la woon ma ñëw ci moom pour wax ko ne ko sëñ bi yow de yaa ngi ñaanal dëkk bi lu nekk yaa ngi ciy def yow li bi mu tàkkee yaa ko fayoon wante nag fi mu toll nii war nga cee waxaat woo ñi nekk ci kujje politique gi wax ak ñoom pour que lii ñu def senegal mu am jàmm bi ma ko waxee itam ñëpp gis nañ ne mu rafetlu ko daal dina mu loolu moom lu rafet la bu soob yàlla daan ci taxaw dinañ ci dox beneen bi ci dolleeku mu ne ko sëñ bi réew mi day am mbay moo ko yor say taalibe ña nga nekk ndakaaru nekk fépp di def ay marchand ambulant te itam li daana doxal senegal mooy mbay kon nag man dama ñëwoon di sàkku ci yow nga woo sa taalibe di président Macky Sall nga boole doole ji nga xam ne bi la sëñ tubaa am na ko nga xam ne lu ñu yëkkati mu jóg mu ànd ko ak état du Sénégal ñu dem jëli ndox mi fële ca fleuve ba jëlee ko ay lac de indi ko mu baawaan ci biir réew mi bañ a nekk ndakaaru njaay génn pour que ñëpp mën a dem liggéey ñu mën a def mbay mi parce que Sénégal mbay moo ko yor te ndox mi moo ko mën a defar te boo ci jàppee wax ci ak président Macky Sall sa taalibe dinañ mën a jëli ndox mi fële indi ko pour que ñu liggéey ko loolu bi ma ko waxee sëñ bi rafetlu na ko torop na ma loolu moom lu war a nekk la kon nag suñu ñëw bii ñu fi ñëw tey du ñëw la boo xam ne bii ñëwu développement la ñëwu économie la ñëwu jàmm ci biir réew mi la parce que réew mu jàmm amul liggéey munu faa am ca développement mënu faa am loolu daal moo doon tànk yi nga xam ne bi le moom mooñ fi indi woon te itam ni ñu ci sëñ bi dégloo suñu xol sedd na ci trop parce que ñoom seenu nopp moom lu ci dugg yàlla suñu borom dana ca def tawféex te dañ ca wax na ne loolu moom rafetlu na ko loolu loolu daal moo fi indi tey man nag suma délégation bi doon ko ñoon wax ko aussi suñu parti politique li ko tax a jóg jàmm ak liggéey ak itam wax ko mu ñaanal président Macky sal pour que fa mu bëgg yóbbu réew mi mu yóbbu ko fa ca lépp nekk ci jàmm. non ñun euh, parti politique la yoo nekk ci benn majorité gis bu tudd benn bokk yaakaar fépp foo xam ne fii daal gis nañ ne ñoom mën nañ fa ànd ak ñoom ñu jox ñu suñu gëddë gis ñu te ñu am fa ay nit yu taxaw. kooku mën nañoo ànd ak ñoom mais bu ñu gisee ni tam jafe-jafe dana am ba duñ mën a def benn liste boo xam bi ñëpp dinañ ci dugg li nga xam ne bi la ñun moo ñu war ñu taxawal suñu benn liste ak nit ñi nga xam ne bi la am nañ leen ci gox-goxaan yi te ñu mën faa tekki dara ñu dem jéem a contrôler ji collecteur local yi loolu daal mooy suñu position mais toujours est-il que nag duñu ànd ak opposition ñun président Macky Sall la ñu àndal majorité am la ñu nekk fu ñu gox buñ am daal nit koo xam kii tekki na ca yaakaar ni kii mën naa jariñ goxam te kooko décidé pour dem ñun dañ ko jàppale incha allah rabbi leen li des nag ñu ànd pour renforcer doole président Macky Sall pour que mu contrôler commune yi. non man Darou Moussi la ma fa def daal mooy euh, gis naa ne danaa def sama kemt lay kattan pour que xale yi nga xam ne bi la nga nekk daaru Moussi day xale yoo xam ne yu am jom lañu doo leen dégg ci xasse doo leen dégg ci saaga doo leen dégg ci naka sa dul noonu. xam nañ seen bopp te xam nañ ne politique bi ab yar ak teggin ak rafetal la war a àndal ñu danaa leen jéem a jàppale ci biir benn bokk yaakaar bu président Macky Sall pour que ñu contrôler commune ba comme ni ñu ko bëgg a contrôler feneen man encadrement laay def mais danaa battre campagne bu soobu yàlla ak yonent bi pour que ñoom ñu gagné commune ba gagné ko ci aussi biir département Kébémer incha allah.